quartier sancaan yi nekk ci diwaan bu Mbàkke Bool foofu nag ñàkk kaaraange gu mat lañ fa nemmeeku ginnaaw bi ñu fa agressé lu tolloog ñeenti nit ñaar ñu dagg seeni loxo yeneen ñaar ñi nag ñu nangu lañ yaroon loolu nag ba mu amee askan wi dañoo génn na faaw dañuy faja seen boppu ginnaaw gi nag lañ fa nemmeeku teewaayu polis moom police bi mu yegsee nag bëri na sàmba booy yum teg loxo ñu déglu si ñenn ci askan wi ñu yëkkati seeni kàddu ci micro seen set fii ci mhm. mhm. waaw comme ni ngeen ko waxee rek noonu la amee fii moom sécurité bi manqué na ndax nun fii ñu ngi fi sanc 2004 booba gisuñu kenn ñunu neen la keroog la booba la booba gën a feex booba la ñëpp jàmm tey nag biñ demee ba lépp ñëw ñu gis fi ay ay ñoo xam ne xamuñu leen ci koñ bi sax ñoo ñëw fii taxaw ne taxaw ci suñuy xef dañu agressé ba ci man mii euh, tey ci 5 heures de demi laa jaar ne ñu kar ma génneel ma ay jaasi jakarta la ñu war génneel ma ay jaasi ñetti booy biñ ma karee génneel ma ay jaasi kor ma fii wàkkar ci saak bi 15000 francs ne ci ñu yóbbu ko nga xam ne loolu moom metti na non a xam parce que dañoo masque wu dañoo takk seen kanam yi waaw dañoo takk ji koy caay-caay la dañoo takk seen kanam yi noonu la demee léegi nag euh, comme man bi ma génnee yëguma sax programme bi yàlla tombee waral ay gaaf ma sant ci yàlla bu baax mu mel ni kon fi du du loo xam ne euh, man japp na ne dañ koy bàyyeeti ak yoon kese il faut population bi jukta juk taxawal seen bop mbéjum karam borom a fajal bop nun fi, dañ fe ñew di daan suñu doole sanc fi mu doon all bu ne fandang marché bi, ay sagar la won tay bu ñu demee ba lépp baax li olof jallu lu sutti am borom ay nit jóge ci étranger jóge ci all bu xamuñu leen fi am nañu bo lay identifier dekkuñ fi may japp ne nit mënta a jóge di xajamal ciéré jambo ñu fa dekk wuur ñoo mëna nangul lool ba taxna li lum laaj nañ ko def parce que ñoo fi ab dekk bu fekk da nga fa jaay dekk fa do fa joge mukk fexel ba am fa jamm damay wax ne néeg bi nga dëkk jinax ja fa yëngu sax di nga ko rey doo ko mën a nelaw rawatina nag lu mel nii ba tax na nun danañ ci taxaw nun ci mën a taxawee bu laajee suñu lii dañ koy def tey nag boo gisee ma bàyyi leen ak sama bopp mel ni niiw jébba leen sama bopp noonu rek ma arrangé leneen lu ma ji moon ndax xaalis man maa ko liggéey noo bi ma xëyee déclaré yow noo fii dafay dafay dafay bëri luy am mosuñoo déclaré ba résultat am ci bañ am ci résultat mosuñoo am mu mel ne seet naa fi léegi auto police bi lan la fi nuyu si kon. auto dama cee yem tombeek ñuy jàpp ay nit di leen dugal waaw. mu mel ni bii mooy lu tolloog yoon ñetteel bi yoon ñu fi def agression dafa mel ni du ëpp na ñetti yoon. ëpp na ñetti yoon am na jakarta boobu jigéen ñi xëy gaar ba bu leen dabee da leen day day dawal seen kanam pour ñu mot patine bañ jël lim yor li agressé yi sax dañuy dugg ci kër yi di raafal téléphone jàmbur yi dañuy dugg ci kër yi di raafal téléphone jàmbur yi waaw waxuma la dara waay mooy fii fii nii ñu bëri dañ koy daw ku fii def commerce am na heure doo jaay parce que kenn du ñëw parce que ñi ñu fi gis ñemewuñ leen image bi ñu fi gis ñemewuñ mais est-ce laa jot loolu moo jot tey moo waral lii nga gis nii te lii ngont mi man na maa waat ci Xaadimu Rasuul bu amee amaat lépp lépp jeex parce que ay nit rek ko fi def. dafa am benn waaw dafa am ku ku nu gor démb ci démb tombeek sama mbir am muy ñaar yu daje. yàlla nag a xam am na moom boo leen laalee dara xew yàlla moo dogal loolu tombé war la ay gaaf loolu moo waral coow li nii takkar naa si nii ndax kenn gor démb bëgg a dagg loxoom ak man itam ñu xëy su ma jébbalu doon sama bopp ni mu néew dañ may rey wala ñu dagg sama sama loxo waaye dama leen a bàyyi ñu def lu leen sopp ci man ñu yóbbu sama ñetti junni. li fi xew daal mooy population bee jugal seen bopp ndax gis nañ ne insécurité bi fi am nii man jàpp naa ne du préfet du ma ko ndax yi bind nañ jox ko police dañoo yóbboo yóbboo yóbbu wax a wax boole boole ba bëgg dee man mii sama jëmi bopp dem naa ba tribunal def plainte contre x ñu jox ma këyit na ma demal brigade restée bu Touba ma dem brigade restée bu Touba jox ma ñu joxaat ma demal gendarmerie bu Touba ma bu Mbacké ñu ne ma foofu de zone zone moo tax ñu fa ex demal police ma dem police bi ma demee police maak police keroog ñoo ànd ak oto bi ba fii ñu joxe fa ay numéro wax waaye man li ma gëm mooy complice bi gën a mooy police man loolu laa gëm ak gendarmerie fu ñu jàppee booy booy yi ngeen gis ñu jàpp leen fii tey yëpp loo toog 3 jours te gisoo booy ñu tambaabal kon kuñ feree da ngay perte bu yàggul ay booy buy jaay mbuus agressé nañ ko fi dóor ko fi nangu alalam ak ay portable barki démb njaay benn booy muuma bu fi nekk dóor nañ ko birig démb gor nañ fi nit moo tax population moo koy fajal boppam comme sali police ak gendarmerie mënuñu ko faj saa ñëwee jàpp benn booy ñaari booy bàyyi leen man li ma gëm mooy tey bañ ko fi gi nga tey bi gars yi génnee nii dina jiyee la ñu waroon def ba pare man jàpp naa population xajul ci ay ñetti booy ak ñeenti booy waxoontuma ay lenn ñaareel bi man ñaareel bi li may wax mooy mbaar mbaaraan yi ngay gis nii nekk ci 50 mètres bi nga xam moo xaajale Mbacké ak Touba insécurité totale moo koy def ndax bu tekkee ñoom ñooy làq booy yi def naka sun noonu ñoom ci jëmi bopp nañ leen fee war a jëre moo yili ñoom ñoo war a fexe ba mbaar yi mbaaraan yi nga xam ñooy làq sàcc yi ñu jëlee leen fi ci jëmee boppam bi ci des mooy délégué marché yi man damaa bon bu doon yoon damay jàpp délégué marché tëj leen si kaso bi ndax mënoo ne ay délégué marché ku am di aan gisuma mu taxaw fi ay délégué marché yoo xam ne ñoo lii luñ fiy yar yaral nañ wax dëgg lii tëful tam ne fi tey ah dafay yàgg dafiy yar yaral ñu koy pousse mu yar yaral sama buntu place ba sama maire lañ di ko nekk maa leen fa jëlee force force nekk jaay bon tux agressé sàcc moo fi nekk leneen néew fi naan fekk ak ak fen moo fi nekk marché bii ñaata góor yàlla ñoo fi ñaata góor yàlla ñoo ne si marché bi ñoom rek mënoon nañoo régler seen problème bi dindi ko fi mu jeex marché boo xam da nga am gardien gardien bi di jàpp ay défiant gis défiant mu dëkkal bàyyi leen di jàpp ay défiant yow défiant yi nga dëkkal kay ñuy tux bon di jaay nekk ci biir marché bi ñooñu ngay jàpp par soo ko lijjanti keneen léegi nag lii ñoo koy population bi njor duñu xaar fii ay police ak gendarmerie képp kuñu jàpp dañ lay dëbb ba nga mokk rumux lu ñu ci fekk fekk suñu jar nañ suñu bakkan gox bi jaral nañu suñu bakkan jaral nañu suñu lépp ndax suñu njaboot fi nekk kenn ku fi kenn ku fi rëcc fii amut képp ku jàpp ne mucc nga laa wax képp ku jàpp ne mucc nga wala sam njaboot mucc nga da ngay nax sa bopp ndax da xëy fii xëy ñu la yow sa njaboot kat sa soxna doon dem nangu nañ téléphone wala dañ def équipe boo xam ne bu ñu demee ba yeneen heure yi dinañ ñëwaat fii dinañ ron rondu fii ñëw booy bi fekk duñ la jébal police dañ lay dëbb ba nga mokk ñu soog a woo police luñ ci fekk fekk ñu fi waaye ñu fi ba démb rek dañ fi agressé nit dem ko gor gor loxo bi fii bi dem na ba Touba gépp bañ xool gi ñu nga fii amoon na ñàkkoon na see eh, am sécurité waaye li gën a mooy bañ tojee gaar ba boo yëpp dañoo daw si ñëw fi moo ne amoon nañ yeneen place yu ñu newoon ñooñu dañoo fulaak fay da taxawal seen gox ba ñooy jóge fa ñëw fii pourquoi pas marché bi ay góor yàlla ne fi koñ bay góor yàlla ne fi ñëw gis insécurité bu toll nii sa soxna man cee sa doom yow sa jëmi bopp fii kenn mënatu fee yar xar nañu waxante dëgg ku fi yar xar ñu daj ko guddi goo mënoo xëy ñaari fante dégg ñu ne kër diw ay téléphone am nañ ramasse waaw léegi loolu yow da ngaa jàpp nga ci yow kenn ku ci mucc amut man barki démboo Njaay sama rakk bee lañ ñëw ko jëm agressé mu ko